li ngeen ko gisee noonu ñu ngi fii nii ba léegi ci Fass Cekkeen tey nag mouvement MEFT ki ko dirigé di Babou Khady Dieng di doom ci la maire mais tim di liggéeyal askanu Fass Cekkeen moo fi indi 10 tonnes de riz yi ko moo nekk noonu pour jagleel ko askan bi ñëw tim defee chaque jour bu xew amee ay semence tey nag comme euh, ndimbal la président de la république moo tax ñu def lu mel nii indi li ngeen gis nii di di di di di riz bëgg koo jagleel askan bi may leen ko jël ko nag teg ko ci loxo préfet préfet teg ko ci loxo Sanda Sall nga xam ne moo nekk action sociale pour jox leen ko mu ngi noonu Khady Diouf ah di président MEF mouvement émergence commune de Fass Cekkeen ñu ngi sant yàlla bu baax euh, balaa ma sori ci wax bi ma nuyu le sous-préfet Amdi Moustapha Ba di sous-préfet arrondissement Ida Mouride aussi ñu ngi nuyu nga xam ne moom moo fi toogal ak social sant di euh, sant yàlla bu baax a si loolu aussi euh, balaa ñu dugg ci waxtaan bi ñu suñu kilifa di le maire de la commune de Fass Cekkeen honorable El Hadji Malick Dia di suñu waajur di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yëpp aussi ñu ngi nuyu sëriñ Malick Sall soom di doom ci sëriñ euh, Mor comme ñu ñu nga wax tey dañu fi dajee euh, ngir déglu appel bu président la République wax ne dafa bëgg lépp lu waay mën euh, ñëw apporter ko population loolu lañu dégg ba yàlla dogal ñun suñu mouvement bi ñu de mexte ànd kook euh, ñu bokk mouvement bi yëpp ku mel ni suñu secretaire général Juma Camara ak seeni Diawle ak euh, suñu trésorier euh, di Fatou Ba ñun ñëpp ñu ànd def benn say ba madame jand lu tolloog dix tonnes de riz pour dimbalee ko population commune de Fass Cekkeen Euh, tey yaakaar naa ne ceeb mu ngi nii ci suñu ginnaaw euh, teg ko ci loxol sunu kilifa di le sous-préfet Amdi Moustapha Ba euh, mu war a représenter deux cent ménages chaque ménage war na am le minimum cinquante cinquante cinquante kilos loolu daal moom moo ñu fi dajale di wax ne aussi yàlla dogal na di barki démb le le le neuf Euh, daje joxe au niveau de trésor joxe woon nañ fa benn montant euh, ci compte euh, force Covid 19 pour dimbalee ko son excellence président la République tey encore ñu ngi fii commune de Fass Thiéckene di dimbale suñu maire di Alhaji Mohamed Djily lii ko teg ci loxoom pour que mu jox ko askanu commune Fass Thiéckene dix tonnes yi tonne ci nekk deux cent soixante quinze mille la boo ko xaymaa automatiquement da ngay gis euh, montant deux cent soixante quinze mille moom la ñu ko moom la ñu waa léegi ci séddale bi loolu am na keneen koo xamante ni moom la yàlla jox cër boobu mooy nga xamante ni moo fi toogal action sociale moom moo xam ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko ñoo ko yeeyoo. waaw kooku daal euh, moom moo yore responsabilité boobu. Euh, aussi mais kooku aussi ci loolu moom ak euh, le sous-préfet de la de de l'arrondissement ñoom ñoo ci ñoom ñoo ci lëkkaloo. en tout cas daal li ñu def tey mooy ñëw ginnaaw bu ñu déglu appel bi président la lancé aussi ñu dimbale suñu waa ji moo tax ñu def effort bi jamono neexut askan bi sonn nañu mais ñu ne ñu ñëw lu ñu am lu mu néew néew néew ñu jël ko dimbalee ko suñu askan. comme ni ñu ko doon defee ci semence bi su semence jotee ñu am lu ñu toppatoo jox ko askan bi bu engrais jotee aussi ñu am lu ñu toppatoo jox ko askan bi kon loolu encore moo ñu moo ñu moo ñu motivé waat ba président la lancé la appel ñu defaat loolu daal boo ko rek. ak mouvement xeex bi jota ngay def jéego yi ndax yéen am nga bi ngeen jéego boo xam ne def ngeen ko ngir. xeex doomu jàngoro gi naam ab mu ngay ne ci gox bi euh, ndax jot ngeen xam jéego bi ngeen def lu su may def ngeen jot waaw euh, jéego bi def nañu ko ndax euh, sensibilisation bi moo ci ëpp solo te sensibiliser nañu askan bi ba fii nu toll nii ku nekk xam na ban comportement nga war a def nan nga ñu topp digley ministère de la santé digley autorités yi ba askan bi yëpp léegi approprié wu nañu ci ci ci sensibilisation la. sensibilisation bi lan la ngeen dugg ci kër yi wala dafa am. waaw dañuy dañuy dugg ci kër yi di sensibiliser ñu raxas loxo yi aussi ñu am euh, écartement bañ a nekk mbooloo euh, aussi ku nekk toog sa kër euh, bañ a nekk di génn génn. jërëjëf.